sart yi nga xam ne mooy tax ñu war a julli yëpp mu ngi ci ñoomit it duñ war ñoo julli ndax suñu lislaam dañ leen koo diggalul benn benn kon mu mel ni kon kenn kii mu ñaar ñi nag ñooy jullit yi nga xam ne ñoom day julli dana am na jamono yu leen di wàcc mu mel ni kon jigéen képp mooy ki nga xam ne am na ay jamono yoo xam ne julli li muy war war ñëpp war koo taxawee moom am na ay jamono yoo xam ne moom du ko war ci bu tollee ci gis baaxam wala mu toll ci di soog a am gone kon jullit kon loolu man moom rek la jullit bu jigéen wal doon kii ñaar ñi nag ñooy jullit yi nga xam ne ñoom day julli dana am na jamono yu leen di wàcc mu mel ni kon jigéen képp mooy ki nga xam ne am na ay jamono yoo xam ne julli li muy war war ñëpp war koo taxawee moom am na ay jamono yoo xam ne moom du ko war ci bu tollee ci gis baaxam wala mu toll ci di soog am gone kon julli kon loolu man moom rek la jullit bu jigéen wal doon koo xam ne julli mën na ko wàcc waaye góor moom amul benn jamono yoo xam ne julli dana ko wàcc kon foofu la jigéen wuutee ak góor ci taxawaay julli ak li muy rëy rëy moom am na jamono yoo xam ne moom du ko war moom jigéen ci bu toll buy soog gis baaxam wala muy soog am gone mu mel ni kon am na ay sàtt yoo xamante ne mooy tax boo jullee julli nga wér ndax am na yi jëkk yi mooy boo jul ndax mooy yi nga xam ne boo ko defee mooy tax julli war la yii nag mooy tax yi nga boo ko defee mooy tax julli ga mën a baax ba ca njëkk mooy faw da ngay doon koo xam ne laab nga laab goo laab googee nag mën naa nekk ñaari façon laab ci sa jëmm ak laab ci sa li nga xam ne mooy barab ba ngay jullee ak li nga xam ne moom ngay sol loolu ñaar yëpp nag day danga ko war a def da ngaa war a laab ci sa yaram ci taq taqalikoo sa sobee soo xam ne dafa jóge ci yow wala mu doon loo xam ne da ko koo ak keneen mu mu mu juddu loolu ñaar yooyu yëpp da fexe ba laab ci laab laab ji nga xam ne moo na ci war mooy boobu boo waree jàpp nga jàpp boo waree sangu nga sangu ñaareel ba ca teguwaat mooy benn faw itam waxtu bu julli day day egsi ndax lépp doonte da ngaa bëgg a julli itam loo ak lu julli baax baax balan balan koo mën a def mu wér faw waxtu wa day tabbi waaye doo doo yàkkamti ba julli ko ci waxtu woo xam ne ak te egseegul ñaareel ba itam faw booy julli da ngaa war a nekk ci am melokaan woo xam ne yiw la melokaan woo xam ne comme da ngay déeyaleeg sa borom te boo doon déeyaleeg ñiiti àdduna yi kese faw bala ngaa dem da ngay wàcc sa waajtaay woo xam ne da ngay jàpp ne lii tax mu war mu yelloog la woo gi mu la woo bu doon su kon nag su comme suñ borom moo la woo di la defloo dara nga war a jàkkaarloog moom war ngaa am yow itam noo mel noo xam ne dana dana dana wone ne yëg nga ne ki lay woo kilifa la ki woo itam mooy ki nga xam ne mooy ki ki ki ki moom woote mooy ki nga xam ne itam mooy ki nga xam ne woote moom rek moo ko war a moo ko sañ a def sañ a def kon loolu booy dem ci moom war nga am melukaan yooyu mel beneen ba ca teguwaat mooy boo dee melokaan woowee ngay mel nag muy suturaal sa awra da nga koy def ci loo xam ne doonut lu yaraax loo xam ne ku jàkkaarloog yow di gis di gis awra ya kon loolu doonut loo xam ne melokaan woowu lislaam bëgg na ko ci kuy kuy wàjji julli ji da ngay yor melokaan woowu dangay sol rafet loo xam ne suturaal na sa awra te wu góor ci li munta ñàkk mooy li tàmbalee ci bëti woomam ba ci mooy li tàmbalee ci jubbu xam ba ci bëti woomam bu dee jigéen nag lii awraam mooy jëm mooy jëmmam jëpp lu dul xar kanam xar kanamam xar kanamam ak ñaari tënkam ñaareel ba ca teguwaat mooy faww itam boo dee julli du ne du ne fa la neex rek ngay jublu faw da ngay am foo xam ne fa nga war a jublu loola mooy fi ñuy tuddee xibla mooy fa nga xam ne moo jib jublu ci kaaba kon loolu mooy yi nga xam ne mooy tax julli gi mën a wér ñaareel ba yitam am na nag loo xam ne bëgg nañu booy julli si nga de def ko ndax mooy tax julli ga nga rafetale ko ni nga ko war a rafetale bi ci njëkk mooy boo dee ñëw na nga ñëw ci ñëwin wu yiw bul bul daw bul waaxu yenn waaxu yi waaye nanga nga dox doxeen wu te wu teey na nga na ngay na nga weggu itam ci mel melokaan melokaan woo ne ku la gis xam ne yow mii kat yaa ngi jëm ci kilifa gu gu gu yeyoo melokaan wi nga xam ne moom nga yoroo ñaareel ba itam booy dugg ci jàkka bëgg nañu nga jiital sa tànku ndeyjoor booy génn nga génne sa tànku càmmoñ bëgg na itam booy booy julli booy booy booy dugg nga am looy wax mooy bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ala mafir li bi waftax li abwaaba rahmatika muy dafa mel ni da ngay wax booy dugg ci jàkk ne suñ ginnaaw bi nga xamee ne li may tàmbali lépp si naa ko tàmbalee ci suñ borom te xam naa ni bu ma jógee ci suñ borom itam ki ma ci war a teg mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yon ndax yàlla moo moo teg boppam moo teg moo def loolu ginnaaw bi nga xamee ne fàttaliku naa ne yàlla rek mooy ki nga xam ne moom la war a tàmbalee lu may tàmbalee ak lu may bàyyi xam ne itam yonent bi sallallahu laa wa sallam war naa ko bàyyi xel ndax moo may woon li nga xam yoon wi nga xam ne ci laa laay mën a jaar ngir mën a am ngërëmu suñ borom la nga cay mooy dangay xam dangay ngay mel ne da wax ne man mii di maa ngi bëgg a jublu ci loo xam ne lu rëy rëy la lu màgg la te xam naa ne ku fees ak bàkkaar la kon nag rus naa suñ borom may taxaw ci kanamam di fa di di ngir bëgg a julli ci maanaam di di jëyaale moom fees ak dell ak bàkkaar te xam naa ne lii may bëgg a def itam yërmandeem képp mooy tax ba man koo defee ni ma ko war a defee kon day mel ni boo waxee ne bisimilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma aftah lii abwaaba allahumma allahumma ighfir lii zunubi waftah lii abwaaba rahmatika day mel ni da won suñu borom ne ko man day xam naa ne ku doyadi laa ku fees ak bàkkaar laa te maa ngi jëm si narat jàkkaarloo ak yow kon loolee nag bàkkaar yooyee maa ngi ñaan suñu borom yow nga teggil ma ko. maa ngi ñaan suñu borom yow mi nga xam ne jëf jii nga xam ne moom nga sant te mu doon jëf ju rëy te xam naa ne man ngir ma man koo taxawee ni ma ko war a taxawee loolu jàpp doyadi doyadi doo adama ma yuma ko kon maa ngi lay ñaan ci sa yërmande lu ma nu ma ko defee rek tam doon ni nga xam ni nga ko bëggee nga yërëm nga yërëm ma nangul ma ko ni ci sa kaw ak mbaax ginnaaw loolu itam booy booy génn nga wax ne allahumma bi li sunubi lii li abwaaba fadlika boo waxee bismillahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah ala mafir li zunubi waftax li abwaab rahmatika yaa ngi jéggluwaat suñu borom xamal ko ne ko de man waxtu mu ne damaa fees dell ki bàkkaar fees naa dell ki bàkkaar waaye nag dafa mel ni ñaar nga digle mooy nañ jaamu yàlla boole koog liggéey nañ jaamu yàlla tey liggéey jógi naa nag ci ci ci jaamu jaamu gi muy muy julli gi maa ngi war a jóg nag ngir sàkku ji loo xam ne moom lay mën a taxawee moom laay mën a téye sama teranga moom lay mën a yore sama njaboot loola itam yaa yor bunt yi koy mën a jàpp ndal maa ngi lay ñaan nga jàpp ndal la ma ko defal ma ko mu mel ni kon julli boo ko dee def ñaan yi ngi ci ñaan yépp doon la loo xam ne lu doomu aadama soxla woo la doomu aadama soxla woo na waxtu wu nekk njëggaluk suñ borom doomu aadama soxla woo waxtu wu nekk itam yërmande suñ borom doomu adama soxla woo na waxtu waxtu wu nekk itam xéewal yi nga xam ne moom la suñ borom di wàcce ci kaw àdduna mu am ci ni nga xam ne ni na ko war a amee te ñaari ñett yooyu yëpp boo dee dugg ci biir jàll julli yaa ngi koy ñaan kon mu mel ni yi nga soxla woo ci doomu adama di soxla woo di doomu adama soxla ci àdduna àllaaxira lépp ñaan nga ko booy bi ngay bi ngay dugg mu kon mu doon ñaan goo xam nga gu mat a bàyyi xel la gu mat di def la ndax loolu mooy tax di nga xam ne moom lañu suñ borom sant ci àdduna ngir ñu taxawee ko ñu ñu di ko mën a taxawee suñ kemt lay kattan mooy tax itam lay tax ñu mën a mucc ci àdd ci àllaaxira ëllëg ñu am ko te loola itam mënuñu koo amee lu dul ci yërmande suñ borom ak njëggalu suñ borom kon bu dee xéewal itam mënuñ koo amee lu dul ci ay yërmandeem ak njëggalam kon ñu ngi ñaan xéewal di ñaan yërmande waxtu wu nekk ndax xam nañ ne ñaar ñaar yooyu ñooy ñi nga xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk ci àdduna ak alaxira yërmande mënu koo ñàkk ci àdduna rawatina nag fu nga xam ne fa lañ jëm ak njëggal yitam mënu koo ñàkk ci àdduna si ndax àdduna dafa ay ay ay ay nattoo ki yëf yëf yëf yëf ànd ci ñëw léeg léeg yoo xam ne suñ dooyee di doomu aadama mënu ko yóbbee te loolee nag lay mën a tax mu tegg ko mooy ñu ñaan suñ borom mu jéggal nu bakkaar yi nga xam ne moo nekk ci ñun loolu nag suñ borom mën na ko jàmm jàpp na ko yàlla nañ ko defal ñi ngi jég ñi ngi ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy kii mën a mooy nangu jëf te xam nañ ne jëf kër ñun ci doomu aadama ci doomu aadama ji kemtalaay kattanam rek la cay defe waaye nam ko war a taxawee kenn koo xam ne war a nga mën a wax ne jëf jëf ji ma suñ borom sant maa ngi koy taxawee ni nga xam la ko suñu borom bëgg te xalaatoo ci yërmande suñu borom ak ak njàpp dalam xamal ne yaa ngi nax sa bopp ndax loolu doonul loo xam ne lu kenn war a jàpp la ba tax na kon ñi ngi ñaan suñu borom li nga xam ne lépp loo xam ne jëf nañ ko ci àdduna si ci loo xam ne ma lu mu digal la ci ñu war koo doxee ci suñu digganteeg moom wala lu ñu war koo doxee ci suñu digganteeg doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ bokk nekk ci kaw suuf wala mbindeef yi nga xam ne moom lañ bokk nekk ci kaw suuf yàlla na ko suñ borom nangul ci yërmandeem ak njëggalam dëppalenoog li nga xam ne moom la bëgg te gërëm ko yàlla nañu yàlla suñu borom nangul suñuy jëf yàlla nañu suñu borom jéggal suñuy bakkar rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin